guddi fukkeel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñeenti rakaan rakaan bu ci nekk mu jàng fatixa benn yoon benn ayatul kursi yu ak inna anzalnaahu fukki yoon ak ñaar bala moo fa mu ko doon des na ko jéggal bàkkaaram yi njëkk ak yu mujj te des na ko bindal itam tuyaabay juróom-ñaar fukki nit ñu dee ci jihaad te bala moo génn àdduna dana moslu lu bokk ci meññetum aljana ak yeneen ak yeneen mbokk yi ko ci bëgg yeneen ñu leeral nga dellu ci xuratu ayn bu sëriñ Suwaybu bu Mbàkke page 144